yàlla daa dogal ñu am fi gan go xamne legui la aksi muy serigne Amdi serigne Amdi Mbàkke dañ koy jox rek kaddu gi bu ko defé mu commentaire ñu ci li serigne Moustapha doon wax kaddu yu gatt rek yo xamne dañ ci mëna jariñu ndax ni ma ko waxee woon rek temps bi dafa xat ta suñu yi lu gay ñu ñuy xaar wara a bu ci jigéen jox serigne Moustapha mom tam mu tënk rek inshallah serigne Cheikh commentaire ko mom tam kon Amdi bismillah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 di ko ñaanal suñu borom dolli ko kattanal te dëgëral ko ba mu àggale yéeneem ci lislaam ci barkeb Sëriñ Tuubaa di siyaare mboolem mbokki daara yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di siyaare baax a baax ki ne seen mbokkum dong rek la nekk ci daara ja moom itam kon maa ngi siyaare ñëpp rek di jël nuyoo bi ak siyaare bi teg ko ci loxol Sëriñ Aliou Samb mi nga xam ne suñu teew ci jataay bi mi ngi bàyyi ko ci moom di siyaare suñu sëriñ Abdou Fatah ñu ngi lay siyaare baax Mbàkke di sant sëriñ bi leen waxtaan wax ji am na solo lool ci buñ ko déggee te jëfe ko am na solo lool wax dëgg yàlla ndax leer na lu bëree bëri nañu bàyyi xel na rek alxuraan suñu borom moo wax ne moo ko wàcce waaye moo koy wat loolu it aw déggin la du rek feeg daara yaa ngi yëngu kaamil alxuraan yi dafi nekk rek alxuraan dafi nekk waaye wattu gi nag ci ñun ñii nga xam ne ñoo nekk ci barab yooyu di ko xamle ci ñun lay tàmbulee rawatina nag ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci barab yi di sàkku alxuraan ak ñi nga xam ne ñoo fa nekk di leen ko xamal nañu xam ne jamono ji soppeeku na lool te it waajur yi yàkkamti nañ njaboot gi waajur yi yàkkamte nañ njaboot gi moo taxit daanaka képp koy jàngale danga cee nekk rek ngir jaayante waaye li nga ci bëgg dëgg-dëgg am ko ci dootu yomb maanaam ko ci suñu borom defal tawfeex waaye léeg-léeg nga jàngal nit ba mu wàcc wala muy tàmbalee beq ba muy bind kaamil waajuram ñëw ne dama koo soxla su boobaa doo bëgg loolu tëj daara ji bàyyi ko seet leen rek ngay bëgg man mi am naa ci ñenn ñoo xam ne nii noonu laa defee ak ñoom waaye damay xam ne yàlla rek lay liggéeyal te yàlla moo am fay kon ñun ñi ci nekk nañu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo njëkkoon nekk ab sëñ daara te lu ne daj na ko def sëñ Tuubaa la waxan fi mi ko wuutu woon nekk jëmmam kenn ku ne gis na lim ba ci daara ak bëgg gi ko bëggoon te wax na ne am na gimiñ ndax ñaar yi bëgg ci saa yi suñu borom da koo xañ mooy nekk fii ci dëkk bi yor fi daara di ko jàngale mu ne ginnaaw suñu borom xañ na xañ na ma ko nag képp koo xam ne nii nekk nga fi nekk ci loole kon na nga xam ne yaa nekk ci sama bëgg kon ñun ñi ci nekk dana métti kàddu gu ne danañ ko dégg itam kàddu gu ne ñu ngi koy dégg suñ daara yi lu ne lañ leen di waxal waaye nañu xam ne ku nekk ci bëgg yàlla ak yonent sëriñ bi jërul ngay tiit jërul ngay ragal jërul ngay tiit jërul ngay ragal nañ xam nañ xam ne sëriñ Tuubaa wax nañ ba tey nit ñëw na fi moom andi fa ab kaamil alquran bind ko andil ko ko mu jox dundu ren ba déwén kon kooku fonkoon na alquran kon keneen ku ko ñàkk a fonk it nañu xam ne ki ñu amoon fonk na alquran kon loolu war na nañoo doy ñu ñi ci nekk ñu doolee góorgóorlu bu baax ñu ndaw ñi ci nekk nag tey jàng nañu bàyyi xel bu baax a baax lu leen waajur yi yàkkamte yàkkamte nañ xam ne defaluñ leen lu gën jàng yóbbuwuñ leen ci lu ko gën ndax sëriñ bi nee na képp koo xam ne nii yaa ngi ci li nga war a nekk saa boo noppee li war ci yow suñu borom dana ko def ci yow dama am jenn maam joo xam ne sëñ Tuubaa da ko woo ba mu ñëw mu ne ko soo demee nekkal ci la war li war ci yow bu jotee yàlla dana ko def kon nit ki na nekk ci li ko war te ndaw li li feeg mi am ñaar kàddu ba mu jàpp fanweeri at lu mu fi def lu dul jàng jàng ko gën ci moom lu mu mën di def lu dul jàng jàng ko gën ci moom jëpp waajur woo xam ne nii di yàkkamte nga ba yóbbu ko ci leneen ba lam war a am ci alxuraan amu ko xañ nga ko adduna xañ nga ko àllaaxira kon xam naa kàddu yi da mën a gudd ndax sëriñ Moustapha leeral na lépp nañ xam ne daal alxuraan mooy lépp loo xam ne nii lu waaye di sàkku rek mi ngi ci alxuraan rawatina nag buñ ko xamee di fàttali bu baax mbokk yi nga xam ne jaaroon nañ ci barab yi ba bàyyi koo fi nañu bàyyi war xel barab yooyu xëy na lii sax ak fàttali ko koy a bàyyi xel bu baax a baax ndax bëri na ci waajur yoo xam ne ni bàyyeetuñ xel barab bi seen njaboot ga nekkoon waaye njaboot ga fa nekkoon nag ñoo war a am yittewoo bàyyi xel ne barab boobee ñu jaaroon ba jóge ca li gën ci ñoom àdduna ak àllaaxira fañ ko amee ñu koy bàyyi xel waxtu wu nekk di ko nemmeeku di fas yéene seenu ñàkk di ca dem kon ñu ngi sant bu baax mbokk yi di leen ñaanal yàlla taxawee te kattanal leen ci barkeb Sëñ Tuubaa ba liggéey bi fa ngeen ko bëgg a àggale yàlla jàppandal te ànd ko kilifa gi ci barkeb Sëriñ Tuubaa ñoo ngi jégalu bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah. kàddu gi rafet na am na la yàlla yàlla kattanal la yàlla yàlla wér